asalaamaaleykum gars yi maa ngi leen di nuyuwaat di leen dalal ak jàmm ci Sen Sport 221 the best sport channel final UEFA Champions League bi war a dox diggante Chelsea football club ak Manchester City ni ki suba lay doon ci samedi ji jamono yi nag ki nga xamante ni mooy Edouard Mendy ak kii di Ngolo kant yëpp daal di dellu si mu nekk xibaar bu neex ak Blues yi kon ñaari joueurs yooyu nga xamante ne ñoom ñëpp dañoo blessé woon jamono yi entraîné nañu te jàpp nañu ne amaan sax dinañu nekk titulaire ci final boobule. bu ñu xolee nag jamono kii di Edouard Mendy sax amaan na suba dina nekk premier gardien africain bi nga xamante ne dina jouer lii di final UEFA Champions League jëmee nii nag bu ñu xoolee moom Edouard Mendy ni ki ren ji mu def saison bu baax ak Chelsea football club rawatina ci lii di UEFA Champions League bi xoolee statistiques muy prestation yi nga xamante ni daal dina koy am moom Edouard Mendy ak kii di Ederson bi nga xamante ni mooy gardien bu Manchester City kii di Edouard Mendy moo nekk ci kanamam ndax ñoom ñaar kenn ku nekk ci ñoom daal dina am 11 appearance muy fukki match ak benn yi nga xamante daal dina koy joué Edouard Mendy daal dina am 11 match yi mu joué am ci lu toll ci 8 clean sheet ñetti match yi nga xamante ni encaissé wul benn bi ki nga xamante ne mooy Ederson dal dina jouer onze match waaye nag moom sept clean sheet la am kon foofu Edouard Mendy moo ko féetee kanam ndax Edouard Mendy am na huit clean sheet Ederson dal di am sept clean sheet Edouard Mendy dal di def lu toll ci 31 saves yi nga xamante ne dal dina koy amal ki nga xamante ne mooy Ederson moom 16 la dal di def kon bu ñu xoolee ba tey foofu Edouard Mendy moo nekk ci kanamu kii di Ederson ñoom ñaari ñooñu nag nekk ñaari gardien yi jamono yi gën a am solo wala yi gën a taxaw ci English Premier bi ñoo war a jonoon ni ki suba ci final UEFA Champions League bi ki nga xamante ne mooy Abdallah Sima moom moo nekk meilleur espoir foofu la ci Tchèque muy championnat boobu nga xamante ni foofu lay évoluer ak Slavia Prague moom eh, ki nga xamante ne mooy Abdallah Sima moom sax moo nekk troisième meilleur buteur ci championnat boobule ndax moom daal dinay dugal lu toll ci 16 bi ci 26 titularisation yi nga xamante daal dina koy am ak ñi di waa Slavia Prague am lu toll ci six passes décisives comme ni ma leen ko waxee moo nekk troisième meilleur buteur ci euh, championnat boobu di Tchèque moom ki nga xamante ne mooy Abdallah Sima kon moom la ñu tabb mu nekk meilleur espoir maanaam ndaw bi ñu gën a am yaakaar boog ci ëllëgam ci wàllum football foofu la ca Tchèque. Real Madrid ñoom daal dinañ confirmer transfert ki nga xamante ne mooy David Alaba jógee fi nga xamante ne mooy Bayern Munich. contrat bi signé nañu ko léegi mbir mi leer na officiel na ñii di Real Madrid daal dinañu koy euh, publish ci li nga xamante ne mooy ci seen website bi def nañu benn officiel euh, announcement di xam le ne ki nga xamante ne mooy David Alaba jamono joueur Real Madrid la waaye nag dinañ ko présenté après Euro bi loolu la ñuy wax bu coupe d'Europe bi passé ci la ñu koy door unveil maanaam daal di koy présenté ñi nga xamante ne ñoo di fans yi ba tey ki nga xamante ne mooy David Alaba dal dina signé contrat bu toll ci 5 ans bi nga xamante ko téye foofu moom kii di David Alaba free transfer la nag maanaam ci fàttali Real Madrid jënduñu ko kii di xibaar bi di wéral ne David Alaba mooy nekk mool bi njëkk bi nga xamante ne Real Madrid daal dina koy seen tabax bu bees bi ndax dañu lancé benn projet bi nga xamante ne mooy dañu bëgg tabaxaat équipe bi kaw loolu mel na ni mbir mi démarré na tey bi nga xamante ni euh, officialisé nañu arrivé wu ki nga xamante ne mooy David Alaba ñuy séentu ana lan moo ci topp ci fan yi ñu dëgmal kon xibaar bi loolu la Liverpool ñoom itam daal dinañuy confirmer ki nga xamante ni mooy euh, Ibrahima Konaté mi nga xamante ni moom Red Bull Leipzig la daal di jógee Liverpool ñoom itam daal dinañu bind ci seen website bi di di confirmer xibaar bi ne ki nga xamante ne mooy Ibrahima Konaté moom itam joueur Liverpool la moom itam daal dinay signé contrat wu 5 ans ñi nga xamante ñoo di Reds nag daal dinañuy fay lu toll ci 36 millions pounds muy 36 de livres sterling ñii di waa Red Bull Leipzig Juventus ñoom daal dinañuy dàq ki nga xamante mooy André Pirlo Pirlo bi nga xamante ni moom fan yii yëpp banque bi dafa yëngu yëngu woon loolu kayiti xibaar yi koy kii di Massimiliano Allegri ma nga xamante ne moo fa moo dal di dellu si waat jëlaat équipe bi kon Real Madrid ñi nga xamante ne ñu ngi doon yaakaar jot ci kii di Massimiliano Allegri foofu moom doxatul ndax Allegri jamono yi moo nekk entraîneur bu Juventus ñaari candidat wala ñetti candidat yi nga xamante ne des nañ ci buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar yi mooy ki nga xamante ne mooy Antonio Conte ak kii nga xamante ne mooy Sabi Alonso ak Raúl González nekk ñaari ancien joueur Real Madrid ak ki nga xamante ne mooy Antonio Conte mi bàyyi Inter de Milan mu ñooy ñetti candidat yi nga xamante ne ñoom ci la Real Madrid war a mën a tànn ki ko fa war a wuutu kii di xibaar bi sax dal mooy Mauricio Pochettino moom itam Real Madrid bàyyi nañu xel ne mën di nañu ne a bàyyi Paris waaye ne ñoom duñu dugg benn yoon ci waxtaan ak ki nga xamante ne mooy Pochettino fekk dégguñu ne moom dafa dal resign dal di foofu nga xamante mooy ca Paris saint fekk loolu amul ñoom duñu ko approche duñu wax ak ki nga xamante ne mooy Pochettino wala ay jege ñaaleem ki nga xamante ni nag mooy Xabi Alonso Raúl González ak Antonio Conte te yi kon mooy ñett ñi nga xamante ne jamono ñoo gën a nekk favori ngir remplacer kii di euh, ki nga xamante ne mooy Zinedine